mbokk yeeg xarit yi ñuy suivre ci solution TV am nañu mbégte ñëwaat tey jii ci altine ji ci l' émission des émissions comme ni ngeen ko baaxoo di gisee nag saay su nekk rek ñu fas yéene ci ànd ak Sa Ndiogou Mbengue ginnaaw biñ leen nuyoo ziar leen noonu la ñuy demee ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacké yàlla suñu boom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wéer ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ci yaar ñëpp tey balwa ñëpp ak alaajee ngi nii toog ma bàyyi ko mu nuyoo kenn tonatu ñuy suivre alaaji maa ngi lay nuyu. ma jigéen ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak euh, di nuyu di ziar euh, sénégalais yëpp yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu mhm. waaw ñu ne sëriñ Sidi bu baax a baax a baax di ko ñaanal. Mbàkke mu yàgg fi lool lool lool te ànd ak wér nuyu sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp nuyu sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarim Axlaaq nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp mhm. di nuyu techniciens yi di nuy tout le monde sénégalais yi nekk ci biir réew bitim réew macha allah. voilà mu ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax nuyuwaale ñëpp rek ak Baye Assane Mesere mi nga xam ne say su nekk rek. ayca moo naan l'émission des émissions door na ah, tey nag daañu waxtaanee kii nga xamante ne ni moo di Bougazeli kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci premier ministre bi di Ousmane sunk nee na nag xam na ni nitu jàmm la te wax dëgg yàlla mosu koo xamal dara loo xam ne lu ñaaw la ñu ngi koy ñaanal moom ak président bi di Bassirou Diomaye Faye kaddu yam ci yëkkati daañu leen ko dégtal léegi ngeen suivre ko su ko def yàlla ji daal di ñëw indi ci xalaatam ñu noppi ca ànd ak Aïssatou Diop Fall moom mi nga xam ne nag nee na li ci jomaay du Sonko ndax nee na yàlla wan na ko ne euh, kii di jomaay bokkut ak Ousmane Sonko benn yoon te nee na nag euh, la leen boole ñoom ñaar bokk na ci freeram am boobu nga xam ne moom mooy léppam moo koy defal léppam léegi léegi daañ leen ko dégtal ngeen déglu ko su sobee sunu borom. ñu jeexalee ak Ndeye faatu jaay moom nag ma ngay wax ci présidence dama war a doxee protocole ba ca nekk joxe ay explication yu mën a dox euh, ci diggante kii di président bi peut-être ak première ministre am taxte nee na président du dugg ba toog rek daanaka dañuy daal di tëj bunt yëpp te nee na mën na dem ba Ousmane Sonko soxla ki nga xamante ne ni moo di président bi mu jafe ko lool. ba joxe exemple lu jëm ci président bi fi bàyyi ko di yi Sall ak compagnon yi nga xamante ne ni amoon na ko ca début ba euh, ku ci mel ni Aline Badara Cissé ñoom Moustapha Cissé Lo ak mbay Ndiaye problème yooyu lañu amoon au début mu juróon ay jafe-jafe nee na nag njort na mu am ci diggante président bu bees bi ak premier ministre am léegi léegi nag dañuy daal di ànd ak yéen euh, ci Bouga Zéli xamante ne ni yëkkati na ko jëmale ko ci ci président Ousmane Sonko mu nekk euh, njiit jëwriñ ju njëkk ci gouvernement bile mu wuteeg lool ak kàddu yi mu yëkkati woon ba xale yi doon ko baar nañu dem déglu kàddu yi mu mujjee yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko. am na xam ni. Mhm. Euh, yàlla mi ko bëggoon a jox nguur. waaw falee ko mu jaarale ko fii. Mhm. Euh, ba tax na Ousmane maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm nit ku baax la xam nga damay faral di ko wax sama gars yi léeg-léeg bu ñu toogee man leen Ousmane Sonko moo dàq leen ah. leen da ngay fu mu toog kenn du ñëpp da ngay ree bay a dee nekkoon douzième législature nitu jàmm la noonu la nekkee woon ak ñëpp mm-hmm. foo ko fekk day kaf di ree da ree boo sonn waaye mm-hmm. man gisuma ci moom benn jafe-jafe mm-hmm. te xam naa tamit nitu diine la ndax daanaa gis lépp ñu daan def ba waxtu julli jot danaa ko bàyyi dem julli ci kon nangul naa ko ni jullit piir la mm-hmm. lii leen yàlla dénk nag eh, yàlla na yoon yan bi oyof toll ci ñoom ba seen yéene ci réew mi ñu matale ko daal maa ngi leen koy ñaanal ñoom kon de man leen Ousmane Sonko moo dàq leen ndeysaan li ngeen ah. waaw man leen bu koy gis nii nii su ngeen toogee di waxtaan nii dangay fu mu toog kenn du ñepp da ngay ree bay bëgg dee ci mi ngi noonu alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne euh, Bouga Zélie yëkkati na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko <laughs> mu wuteeg lool nag kàddu ya ñu déggoon ca jamono coow li ba mu bëree lool tàng lool tey nag ñaanal na leen te euh, ci gouvernement bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko jiite yëkkati ay kàddu yi rafet a rafet jëmale ko nag ci Ousmane Sonko. waaw jërëjëf macha allah <clears throat> kàddu yi euh, am na solo mu nekk kàddu yoo xamante ne. Euh, kàddu yu tuub la kàddu yu jéggulu kàddu yu wane ni euh, li ma waxoon euh, du woon lu ne waaye dafa tolloon ci période boo xamante ne bi faawuma wax lii donc tuub na quoi tuub na ci pénc bi mm. mais tuub gi mën ngaa tuub bañ a toroxal sa bopp am na loo xam ne toroxal sa bopp la mm. waaw parce que mën naa wax lii lépp mën na ko wax wax mm. li nga xam ne moom la xam ci moom ba noppi rafetal moom nekkam mais bu demee nag ba ne bu ngeen seetee euh, mosuma koo sax wax wax ju ñaaw mm. loolu moo sabab vidéo yi mu doon wax wax ju ñaaw génn parce que bu fekkoon ne dafa yem ci lii rek mu waxtu doon problème quoi mm. mais boo bëggee fàtteloo nit ñi loolu day mel ni yaa ngi naxaat nit ñi quoi mm. parce que naxe moom lenn la parce que bu fekkente ni bii man damaa ñëw di tuub di la jéggul ba di wax lu nekkut maa ngi di la nax quoi mënoon nga assumer lépp loo xam ne waxoon nga ko ci ay jamono nga ne wax ne ah lii de woo waxoon daan naa ko wax ay wax yu ñaaw nag waaye loolu yëpp politique la ngir bañoon rek mm-hmm. liñ yor mu jël ko mm-hmm. waaye nag ginnaaw gi nag li ma xam ci moom nag lii la bu boobaa doon na gën a rafet ci moom mm-hmm. bu boobaa nit ñi duñ ko fàttileeti ay kàddoom parce que da leen koy fàttaliwaale ci biiri waxam Mhm. mais bu bëggee làq loolu. Mhm. ba mel ni lu mel noonu mosu fee am. Mhm. looloo sabab nit ñi génneel ko. kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni waxoon na ko. waaw kon day mel ni rek euh, ñu mel nii nag ñu ci bari ñoo àndoon ak président Macky Sall ñoo ko dugal ci. situation yi nga xamante ni bi fa la mu jéewoon a dugg. yàlla dimbali na ko nag ba dernier moment mu génn ci mais na xam ni. ñi gënoon a nekkoon ay noonam mooy ñii. Hmm. te waxoon naa ne la ñii ay nit lañ yoo xamante ni euh, waruñoo mën a dugal nit ci nit kuy xalaat ci lenn parce que li leen yitteel mooy seen bopp kese seen jëmmi bopp mën na tax ñu weddi ñu wacc li ñu li ñuy ñu yàbbi ñuy lekkaat li nga xam ni moom la ñu wàccu woon waaw loolu mooy li nga xamante ni bii moo rafetut hmm. waaw loolu rafetul waaye loolu euh, moom moo ciy perte Ousmane Sonko moom moo ciy gañe rek parce que lim ciy gañe mooy. ñi ko daan tuumaal ñëpp di ko waxal wax ju bon ak wax ju ñaaw. Mm, doon toon luñ gëm. Mm-hmm. dégg nga ko li nga xam ne moom la wax fii. Mm-hmm. léegi mu ngi ñuy wax nañu Ousmane Sonko nit ku baax la ku bëgg nit la. ku bëgg diine Ousmane Sonko ku bëgg diine la. Mm-hmm. Ousmane Sonko ku bëgg diine la donc. te ñii ñoo ñu doon gëmloo démb nañu xamu waa ji. nit la koo xamante ni baaxul nit la koo xamante ni bi li yooyu rek lañ ñu doon gëmloo tey jii même pas biñ faloog léegi matagut weer wala ñaari weer sax matagu ko léegi ñu ngi commencé di wadd di wax naan lañ doon wax yëpp du dëgg lañ doon wax yëpp du doon def yëpp du dëgg. mais est-ce que nekkul li gars yi di wax naan nguur gu wàcc rek il faut nga gis ñoo xamante ne nii dañuy bëgg a rallier wu. moo rallier du yomb non non rallier ak yi ni mel. rallier du yomb jàpp mm. naa ni moom rallier wu jéemu tar rallier sax parce que xam nañ ni. Mm. rallier ci nguur gi euh, yombul ñoom xam nañ ko ñoo la ko gën a xam mais parents dañuy def lii pour protéger seen xam buggaa dafa am. ay dossier yoo xamante ni bi leeragut maanaam ay dossier jàpp na ni xam nga bu fekkee ne dafa jàpp ni dossier yi. Mm. parce que tey ji bu fekkente ne bi tey Ousmane Sonko dafa jóg songu Bougazeli c'est parce que da ko doon wax wax ko naqari boobaa mook moo mayam mm-hmm. mi war sa demee noonu. nit ñi kaasuñu pour yëf yi demee noonu te jàpp naa ni ñoom doxewuñu noonu. Mm-hmm. parce que li ñu jaay sénégalais yi état de droit képp koo xam ne kii yoon mën na am ak yow kii yoonay am ak yow mbir mhm. mais pas du caagi ni da ngay ñëw làqatu ci ginnaaw Ousmane eh. Sonko taggal ko ay maamam war a jay ko moo lay muccal parce que loolu la nit ñi wax ni loolu moom moo fi war a dootut am mhm. donc kon bu defee lii dafa toroxal boppam rek ci penc bi na xam ni moom bu fekkee ne yoon mi ngi ci ay mbiram du làqatu ci ginnaaw Ousmane Sonko ko ciy génne kon jar sa waxal wax ju rafet wala jar sa waxal kii bu fekkee nag moom dafa wax wax ji moom ngir ne naa tuub bu mu làq li nga xam ne moom la doon wax na taxaw ci pénc mi mhm. daal ne ah man de wax dëgg fa yàlla yëkkati woon naa kàddu yu ñaaw yu ne jëmale ko ci jëmm ji waaye ba ma koy def de mhm. politique a taxoon wala lii ak lii moo taxoon waaye maa ngi koy tuub di jéggul li ma xam ci moom te muy dëgg mooy lii ma leen di war a wax mhm. bu boobaa nit ñi dinañ nangu sag tuub waaye bu fekkee ne da nga bëgg a ma ne dara xewu fi woon wax nit ñi ne mosuma koo wax dara ba noppi nga ñëw ràccal ko wax lii moo tax it xale yi dañuy dem rek indiwaatal la say wax mm. tegal la ko muy ay wax yu ñaaw yoo xam ne bi doon nga wax donc politique mm. waruñu noonoo nit ñi waruñu doon ay noon ay débat d'idée la bokk leen gis-gis kii dafa ñëw am gis-gisam ay sénégalais daan ne ah man de wax dëgg fa yàlla lii nga xam ne moom Ousmane Sonko di woote gis naa ci sama bopp am ay sénégalais yu ne ah man de li Macky sàll nekk man gis naa ci sama bopp mm-hmm. loolu war na ku nekk war nga mën a sénégalais yi rek ñoom ñooy jugé bés jot ñu dem ci urne ya mais nga bëgg a taxaw ne waa ji du fi doon candidat diaboliser ko yàq deram waxal ko lu ne xoolal waajoo ju doon wax ne euh, bas président Bassirou jomaay fay ne ñi ngi ko tuddee woon sëriñ Bas xaw ma nan nee na mook moom ñoo bokkoon xaw ma lan mooy waajoo ju xaw ma mesere te mu euh, mbokk Assane mesere defe naa ñoo bokk sant astafurlah xam na mais ñoo bokk sant xaw ma nan mesere. gànna mesere wala. noonu du gaa dëgg du gànna mesere déedéet benn waaye la xaw ma nan kii la dëkk ci gaaw booy Antoine ya la woon rek. Ah. léegi mu ne waaw mu ne. Mhm. léegi mhm. Euh, ki nga xam ni moom mooy euh, kii Bassirou jomaay fay daal di xaaj ne moom bu ko kenn waxati loolu nañ ko tuddee Bassirou xaw ma joxa ca la xaaj. ci doon xam nga wax ju ñaaw joo. xamante ni dégluwul papaam waaw ma heureusement. que papaay Jomaay. ñëw na ba leeral yàlla def mu leeral mbir moomu ci wax yoo xamante ni bi euh, leeral yëf yi ni nga xamante ni noonu la demee ndekete sax euh, kiyam la ko tuddee. billaay ab benn xaritam xaritam. xam nga nga gis loo xamante ni bi tey bu fi loolu amutoon vraiment euh, foofu lañ doon jaar rek pour jabu nan la nit mën a taxaw ci pénc wax fen fen wu toll noonu jëmale ko nit. Hmm. yow mu wóor la ni lii ngay wax du dëgg. te ay mbokkam a ngi nii xam nañ ni li ngay wax du dëgg loolu nit da ko war a jombale boppam. wallaahi. toog yow mu wóor na ni li ngay wax du dëgg te li ngay wax am na ñu xam ne du dëgg ba noppi nga di ko wax loolu vraiment man nit ku mën a franchir ligne boobu man damay wax ni kii nag euh, mu ngi ci extrême mbon. Mhm. parce que loolu moom vraiment fa mbon yam. fa la commencé fa nga tàmbalee yow. wallaahi c'est grave. yàlla baax na. waaw ah yàlla dolli sutura. amiin. ay euh, Aïssatou <laughs> moom itam euh, wax na nag ci euh, Diomaye ak Sonko dëgg yàlla nee na li mu gis ci président Diomaye gisu ko ci kii di Ousmane Sonko wax peut-être li tax lii yëpp am ndax frère Diomaye daanaka mooy léppam mooy jàngal doomam mooy daanaka lépp loo xamante ne ni ay mbiram la rek moo ngi ciy taxaw nañu dem déglu ko te dellusi. ba ma ne jaan ni ma toogee woon xool Sonko xam ne Sonko mi du waaja noonu la ma yàlla wane jomaay mi ma xam ne jomaay mi mooy mbir mi ma toog di ko suivre di ko suivre te li may suivre jomaay yëpp xamu woon ne ku ko jege moom loo xam ne mënu ma ko wax fii mais mën naa tun tuuti rek muy magam bi mu bokkal ndey ak moom jomaay ci ki mu topp sama nit mooy sama duwaañ li may wax ni musuma ko wax te tey laa koy mujjee wax magam bu moom jomaay ci ki mu topp kooku deux ans la ko magee ñoo bokk ndey ak baay kookoo nàmp jox ko muy Ziz Ziz rek laa yem dama àggali mooy sama doyen depuis des années oto bu ma yor bi ma yor nii fan yii moo ko génneel sama kër gi chauffeur sax magu jomaay moo ma koy utal sama doom école bu muy jàngee nii magu jomaay boobu moo ma ko lijjantil ma dugg fa sama doom ki kay jàngal lépp répétiteur bi tout sama lépp juge la du ñu toog guddi dañuy rayante ma nag moom ndax moom man maa faa jom ray mais moom Sonko la faa dañuy rayante man ak moom pourtant di jamante baak waaye sama nit la donc ma mais man ba bëgg jomaay xaw ma woon ne. Mm-hmm. il sera dans cette situation. non non non loolu c'est vrai moom. loolu c'est vrai non ba may bëgg jomaay. Mm-hmm. boobu xaw ma woon ne moox sama xarit douanier bi ñoo bokk man xamoon naa ne sama xarit douanier bi. Mm-hmm. booba Pastef xewagul. mi ngi doog a commencé ñu cukki cukki est-ce que yaa ngi may dégg bu baax li ma lay wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ba Pastef xewee sama xeetu duwaay ñi ñemewu ma woon wax ne ma am na ca mbokk. Mm-hmm. est-ce que may dégg bu baax. fu may waxee. xam nga kañ la ko ñeme. man maay toog di man ma gis jomaay bëgg ko xam na kii am na mbir. xam tamit ne bokkul li ma naqari ci waa Pastef li ma naqari ci Sonko mooy li ma neex ci moom xam ne bokkul ak ñoom moo tax yàgg naa wax sama dernière émission ci Penda Badji boobu élection ñëwugul dama ne ñii wax naan Diomaye Sonko et je le répète ici Diomaye n'est pas Sonko s'il était Sonko ma yemale ko ak mais Diomaye n'est pas Sonko et le Sénégal va cent rendre compte mmh. il n'est pas Sonko donc <clears throat> ma bëgg ko man du ma bëggantu du ma bajantu ginaaru kenn nenu ma ma kenn mhm. li ma bëgg laa xam waaw mi ngi noonu alaaji eh, ñoo ko déggandoo kàddu yi nga xam ne eh, moom ay Diop Fall yëkkati na ko jëmale ko ci Diomaye ak président Sonko nee na nag dafa tudd bu guddi yàlla wan ko ne ko li ci Diomaye du ci Sonko nee na nag lépp loo xam ne naqari na ko ci waa Pastef rek neex na ko si Diomaye <laughs> mu ne yàllaa koon <laughs> ah. <laughs> ko yàlla wanee gisu ko li ko yàlla wan li yàlla wane kañ dafa leer bu dee moom moo gis leneen kon na xool keneen kan moo ko wan waaye du yàlla. <laughs> ah neen de yàlla ko <coughs> waaw donc na wax keneen moo ko wan waaye yàlla moom wanu ko yàlla moom li mu wane. Mm. ñëpp ko gis mooy li nga gis ma gis ko. Mm-hmm. Sénégalais yëpp gis ko. dëkk ay mbokki Jomaay gis ko. Mm. ay mbokki Ousmane Sonko gis ko. Mm-hmm. ñëpp gis ko parce que Sonko dafa toll woon foo xam ni. bu ne woon sama rakk ji topp leen ci ginnaaw mën naa bañ a bokk ci benn parti nit ñi voteel ko. tànnul rakkam bu ne woon El Malick mii tànn leen ko bu ku mu wax tànn leen ko jàng kon koo koy waaja. Mm. bu fekkee ne moom waaja lay wër nee na Sonko du waaja moom kon xamut kan mooy waaja lii muy def nag xalaat la benn façon la. Mm. bu ay nit di def ngir tàqale mbir. Mm. maanaam dañuy fekk lenn ñu def ko ñaar. ci façon bii nag lañ koy defee wéeru ci kenn ki juddoo ak mbokk wax ay mbir wéeru ci léegi nag bu fekkente ni bi yow mi nga xam ni yaay patriote bi nangu nga wax ji mu jàll rek mooy def na benn pas en avant pour lu jëm ci yoonu yàq ak diviser lenn lu mu bëgg a def ñaar parce que mbir mi lenn la du ñaar hmm. te li mu war a doonee lenn du ñaar loolu moom laa doon wax ne la muy président Diomaye muy premier ministre Ousmane Sonko dañ ñu ko war a sàmmal. Mhm. parce que soxlawuñu leen pour juróomi at kese dañ leen a soxla pour ñaar fukki at ak juróom jàpp fanweeri at lañ leen soxla ci réew mi loolu nag lii lenn la ci lu koy yàq maanaam yàq gi. tàmbali na tey pour ñu jëm deux mille vingt neuf nañ xam ni ñi koy yàq tàmbali nañ commencé pour yàq ko parce que xam nañ ni élection yi mais deux mille vingt neuf bu ko ñuy gañe loolu nag lenn képp moo ko mën a indi mooy diggante président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu fexe ba nit ñi yëg ni ñaari nit lañ li slogan boobu nga xam ni moom la wax ne Sonkoy jamaay jamaayee Sonko. nduru ñaar tey kenn. loolu. Mhm. maanaam sunu borom moo ko jox xaw ma ku ko njëkk a génne waaye na xam ni. kàddu la koo xam ni. borom bi da ko jaarale ci moom rek ngir mu génne ko. El Malick waaw. bi da jaarale ci moom rek ngir mu génne ko. juróomi at kenn mënu cee defar réew mu yàqu 60 ans depuis 1960 ba nëkk ni réew mi dafa yàqu côté boo dem kenn mënu koo defar nag ci juróomi at kon yaakaar gi nit ñi ki boo seetee ñun ñii tey dañuy wax ne lii ñuy def defuñu ko ngu defuñu ko ngir ñun waaye dañ koy def ngir sunu doom hmm. kon ñoom dañu war a xam ne dañu war a téye réew mi fanweeri at yoo xamante ni bi yow koŋ lay doon ngir ñu mën a jubbanti réew <laughs> non dafa mën a nekk. wallaahi lii ma lay wax xam nga wax naa la ko fi bu yàgg. waaw waxoon nga ma ko de. ne la Ousmane Sonko. xale la 50 ndax Mbappé daa war a ñëw. waaw waaw xam nga lu yëpp xaj na ci. <laughs> mais wallaahi gis nga ñi ngi ci loo xamante ni bii tey. Hmm. man de saa yu ma jullee ci loolu laay ñaan. Hmm. yàlla dimbali ñu. ba benn seytaane boo xamante ni bi jéem ngaa fexe ngir toj lii hmm. suñu borom écarté la ci mbir mi parce que lii dafa war a nekk comprendre waaw dafa war a nekk hmm. te nag mi ngi fichir mi ngi tàmbalee ci gis nga prince am loo xam ne kenn du ko xeeb yu mel nii wax yu mel nii gars yi dañ ko war a teela a noyé mu teel a arrêté freiné ko yaa ngi dégg hmm. mu dakk mi ngi wax freeram bi sax nee na yéex naa xam ne sax waaw loolu lépp ne frère am la loolu yëpp amut sens xam nga li am sens du man du frère jomaay ak frère Sonko ma intéressé frère jomaay ak frère Sonko sama ngañ ci ñoom comprend nga man li ma intéressé mhm. mooy président jomaay ak Ousmane sonk loolu mooy li ma intéressé parce que gëm naa ni loolu mooy li nga xam ni moo intéressé sénégalais yi diggante président jomaay Ousmane Ousmane Sonko. loolu mooy li intéressé Sénégalais yi léegi nag loolu nga xamante ni bii tey yàlla dimbali nañu ba tey ñu am lii ñu am ñaari nit ñoo xamante ni bi kenn ku ci bokk nañ parcours ku nekk def na fukki at. Mm-hmm. ak juróom ca impo mm-hmm. sàccoo fa dërëm. comprendre nga nga génn mën a vanté woo loolu wane ni loxo yi set nga yor mm-hmm. ñëpp nangu ni ay liggéeykat ngeen ñaar ñooñu ñu am leen ci bopp réew mi. wax dëgg fa yàlla lii képp ku bëgg réew mi waroo jéem a wut naan fii laa ci féete wala kee laa féeteel képp kuy def loolu maanaam dañu war a noyé li nga xamante ni bi moom ngay wax waaw comprendre mhm. loolu dañ ko war a noyé jël ko teg ko fële mhm. léegi nag mhm. euh, bu waxee ne bu waxee ne euh, Bassirou Diomaye Faye mii moom euh, mooy féeteem kooku bis la yasab la. ngeen da koo yàgg gëm. waaw waaw loolu waaw loolu waaw loolu loolu su ne ki ki ko gëm xam nga kan mooy ki ko gëm. mooy ki ko ki ko fal. waaw ki ne kii leen ko kookoo ko gën a gëm kookoo gën a gëm ñëpp. Basiiru Jomaay Fay. wallaay tey jii moom. bu hmm. nguur nekkoon ci loxoom ñu ne ko joxoñal nit du joxoñ Basiiru am na keneen ku muy joxoñ yaa ngi dégg. moom bu fekkoon ne nguur gi mi ngi ci loxoom tey comme ni ko sunu borom tegee woon ci loxoy Sonko mu nekkoon moom ci loxoom. waaw ñu ne ko koo koy jox du ko jox jomaay. yaa ngi dégg. wallaay du ko jox jomaay parce que liggéeyut lenn loo xamante ni bi war naa tax jomaay falu doo bàyyi ba mu falu nag nga ne moom nga gëm <laughs> yaa ngi dégg donc nag wax yu mel nii man c'est wax yu mel nii wallaahi daf may choqué daf may kii quoi parce que damay xam ni ñi koy wax seen jubluwaay laay xam. peut-être que ni Sénégal da ngay gis ñoo xamante ni bi tàngal lañ leen di jox rek ñu nekk fari ki naan dafa bëgg diw nag dafa bëgg diw non non non il faut arrêter loolu nañ ko jël teg ko ci suuf parce que dafa am wax joo xamante ni tey waaw wax joo xamante ni bi patriote yëpp dañu war a àndandoo doon benn bañ ko mhm. bu ko defee kenn du wut bunt pour jaar fa dëgg la tey gis nga hmm? euh, Ousmane Sonko mi ak président Diomaye xam nga li Assane doon wax ne ne diggante ne digganteeg son bu far force dañuy ànd. Mm. mu neex son bi dañuy ànd mu naqari son bi dañuy ànd. Mm. Sénégalais leen a war a exiger mu neex leen kenn ngeen di doon mu naqari leen. kenn ngeen di parce que kenn kooku ñun faluñu ñaar kenn lañ fal. Mm-hmm. yéen ñaar ñooñ gisee leen ñaari nit. benn nit lañ leen gisee. Oh, benn nit boobu ñu leen gisee nag jàpp nañ ni lii la donc nag da ngeen di mottilante. te yéen la réew mi soxla ngir ngeen teg ko ci siraatal mustaqim mhm. comprendre nga waaw loolu mooy li nga xamante moom lañ bëgg képp koo xamante ki nag duggoo ci logique boobu mhm. ñu xam ni bokkoo ci yëf yi nga génn ci waaye du ma ne damay dugal bii tànk dese bee tànk naan man diw laa àndal waaye ànduma ak diw ku ko wax génnal ci bitti yaa ngi dégg loolu boo ko waxee génnal ci bitti toow coow du la non non mbir mi moom lenn la <laughs> da ngay mën a ànd ak lii wala àndoog lii waaye kii laa àndal ànduma ak kële loolu moom koo dégg mu di ko wax. Mm. nee ko dégage génnal ci bitti. waaw parce que xamal ni bokkoo ci yëf yi. Mm-hmm. ñi bokk ci yëf yi. Mm. amul kenn koo xam ne bëgg nga euh, président Sonko te bëggoo président Bassirou Diomaye Faye amul kenn koo xam ne bëgg bëgg nga président Bassirou Diomaye Faye te bëggoo Ousmane Sonko. dëgg la de loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li ne. Mm-hmm. kon boog képp koo xam ne kii yow bëgg nga lenn rek di nga bëgg projet bi. Mm-hmm. te projet bi mooy lan mooy ñii ñooy ñi ko incarné ñoo ko xeex ba yegg si ko fii nga bëgg maa taxaw naan ma kii du waaja kee mooy waaja. xam nga loolu waxi caaxaan la quoi. <laughs> quand même il faut ñu sérieux quand même. jërëjëf nañ gisale te et puis dañuy wax li ñuy wax nag mel ni ci fulla lañ nekk te fekk ci caaxaan. képp lañ nekk ak ci fayda Aysatu nee na ci fulla am la ne. waaw nee na waaw comme que fulla am la nekk na nekk ci waaw. <laughs> ngi noonu jërëjëf méng ñu jexalee nag ak Ndeye Fatou moom itam nee na dëgg yàlla protocole bi am ci présidence bi wax dëgg yàlla dina jafe lool pour euh, peut-être à l'avenir Ousmane Sonko ak euh, président bi di Diomaye euh, am jafe-jafe lim ci wax yëpp nag dañuy def rekk lu dul dem teewlu ko dellu xam nga président dafa doy waar. xadi président da ngay ñëw sax en retard nga fekk protocole bi. nga ne je ñu ne déedéet ñun suñu heure moo avancé. parce que président kenn du ko ne sax da nga tardé. Mm-hmm. léegi boo àndeek sa menteur politique. te président fu mu jëm ci jotaay bu duggee dañuy taj kenn dootul dugg. waa imaginel Ousmane Sonko bokk ci protocole étatique. Mm-hmm. am lu xew Basiru dugg ñu tëj ko Sonko ñëw ñu ne ko doo dugg. premier incident. Mm-hmm. te mën na jur coow. mën na jur frustration. président de la république mooy ki nga xam ne moo lay soxla gis la. mais yow doo ko soxlaa dangay ngay ñaan audience. mu seet ndax mën na ko wala mënu ko. président moo la bëgg a woo mu woo la. mais yow mënoo composé président rapidement jot ko. da ngay bokk ci cercle bu gën a restreint pour am ko. le président Macky Sall début bi lu mu njëkkee am problème ak ñi mu doon àndal ses compagnons de fortune comme Alioune Badara Cissé. Moustapha Cissé Lo mbay Ndiaye lu ñu doon wax mënatuñ gis président. parce que boo yéegee ba nekk président sa premier entourage mooy sa protocole. c'est le palais les gendarmes les généraux les colonels d'abord okay. après aide de camp léegi nag civil yi doog a ñëw léegi nit ku ko comprendre danaan dafa bew dafa inaccessible mi ngi noonu kàddu yooyu la Ndeye Fatou yëkkati ci euh, diggante président ak euh, Ousmane Sonko kon alaaji daa mel ni bi ni ma déggee Ndeye Fatou mooy peut-être mën nañu dem ba euh, Ousmane Sonko bu soxla Diomaye il faut mu ñaan audience <laughs> pour mën kaa gis. waaw xam nga. Hmm. Euh, parents yi hmm. di expliquer loo xamut. Hmm. Euh, mën nga def ay njuumte yoo xam ne euh, njuumte yu rëy la ci ñàkk xam. bu ñu nee jotaay bële su président ñëwee kenn dootul dugg. président du jékki-jékki rek na lay dem ca jotaay ba de. dañuy xam ndax nii war a ñëw ñëw nañ ba pare. balaa muy ñëw bu dee ñi war a ñëw ñëw nañ ba pare les président di soog a ñëw kon président balaa muy ñëw day fekk Ousmane Sonko ñëw comprendre nga bu dee Ousmane Sonko narta ñëw problème bi day la ba noppi parce que dinañ yëg ni Ousmane Sonko kon du war a mën a ñëw. ñu ne su tardé la wax. waaw su tardé xam nga loolu muy wax noonu mooy waxi ku daanu ci saret comprendre nga maanaam tey lépp loo xam dafa mel ni dañuy improviser yenn yeeg def yenn yi quoi protocole bi ni nga xamante ne bi noonu la yëf di doxee laa maanaam balaa nga xamante ne bi président bi dana yegg si dana fekk lépp daal de yemb ba pare ñu ne président nag léegi mën ngaa ñëw parce que ñëpp ñëw nañ ba pare nga daal di ñëw man de wax dëgg fa yàlla mës naa dem euh, ci ndaje moo xamante ne bi président moomu fa jiitu te man duggoon naa comme que man lañ mënoon a may loolu waxuma la ak premier man laa wax man wallaahi. Ah. ndaje moo xamante ni bi président moomu fa jiitu président ñëw na bay jël parole may soog a egg si. ngay soog a dugg waaw te dugal nañ ma. kon day faatu. ah kon loolu na xam ne ginnaaw man maa mën a nekk exception président ñëw ba toog di jël parole may soog a si ñu may ma ma dugg. ba toog ma duggee sax président nee na ma saa da ngaa tardé. moom ci boppam wax na ma ko président Macky Sall mii tey. Mhm. comprendre nga boobu lay soog a mhm. kon yaakaar naa ni. Mhm. ginnaaw man lañ mën a muñal loolu. kon waxuma laak nag premier ministre. xam nga man ñàkk a xam ni yëf yi di doxee sax moo tax oh, ma tardé. waaw comprendre nga mais rawatina nag premier ministre bi nga xam ne nag ci mbir mi la. leneen li mu wax dafa ko comparé dafa comparé yëf yi. ak yu bokkul. Macky ak Aline Badara Cissé eh, ak euh, ñi ay Moustapha Cissé la kii c'est que dafa comparé ay mbir yoo xam il faut comparaison n'est pas raison. Mhm. waaw par exemple il faut nga yamale yi xool yëf yi. ay maître Alioune Badara Cissé ak euh, kii xam nga bokkuñu bokkuñu yëf yi ni nga xamante ne bi noonu la demee ñii dafa am d'abord lu leen lié laataan ñuy dugg ci politique gis nga ni yàlla di defee mbir yi Bassirou Diomaye fay ñoom ñoo organiser seen parti ñu dem jëli ji Ousmane Sonko ngir mu jiite parti bi. Mm-hmm. du dëgg. tey jii bi ñu demee ba jot réew mi Ousmane Sonko jël basiiru Diomaye Faye ngir mu nekk président dëkk bi. Mm-hmm. ñii bi ñu xamanteelu tey xam nga la moo tax usmaan Bassirou Diomaye Faye tànnoon bokkoon ci ñi lu tax ñu tànn Ousmane Sonko dañ ko tànn ci jub mm-hmm. lañ ko tànn xam nga loolu la Ousmane Sonko tànnee Bassirou Diomaye Faye bu ngir mu nekk président da ko tànn ci njub. Mm-hmm. xam nga moom dafa jël ay pouvoiriste ñoo xam ne nguur dañu ko yittewoo maanaam ñoom ñiy jàngat ñi nekk tey ci nguur gi euh, dañuy jàngat jàngat yoo xamante ni bi jàngat yu maanaam xooluñu ba tey gis nga tey ji Bassirou Diomaye Faye mi ngi def ay acte nit ñi ñi ngi jàpp ni pareen saay euh, am na koo xam ne mi ngi toog mi ngi analyser acte yi euh, président Bassirou Diomaye Faye di def maanaam comme ni mu defoon ci cas Aminata Mbengue Ndiaye ak ni mu def imam bi yooyu yu naturel la nga gis l'autre Ousmane Sonko dem toog ca naaj wa di julli yooyu yu naturel ci ñoom la c'est nag nit ñi dañoo jàpp ni ñii dañuy modeste modeste lu wala te fekk ne nii lañ mel moo tax boo leen di jéem a jàngat jàppee leen yow comme sa bopp yow gis nga tey ji Ousmane Sonko bu ñëwoon ci bërëb ñu ne ko sëñ bi da ngaa tardé doo dugg président dugg na willaay moo la ko gën a xam day tax dëpp du ko def sax kaa mais xam nga kii jàpp na ni problème day am alaa kulli alim problème day am mais du ko def cas parce que xamala la day xam ni moom moo tardé. wala léegi balaa mu cee jotee il faut mu wax. est-ce que comprendre tey jii bu woon woo Bassi président Bassirou Diomaye fay jotu ko day xam ne liggéey bi la parce que xam nañ xam nañ dañoo liggéeyutoon moo tax ñoom ku leen woo jotoo leen it dañ ci liggéey lañ ñëwut parce que dañoo ne ko mais tey mën nga woo président Bassirou Diomaye Faye da ko te ñoom yàgg nañoo tey kooku après dina la wax xam nga ñoom fi ñuy nattee yëf yi. moo doxut bu dee nag ñun ñëpp dañoo war a nguuru. ñu daal day ñëw gis ni kat buñ jëlee problème mu maître Alioune Badara Cissé ak ki nga xam ne moom la ñuy wax kii euh, président Macky Sall ak Diop Moustapha Cissé loog ay mbay Ndiaye ak et cetera comprendre yooyu mooy yi nga xamante ni bii moom la wax ci kaw ne lii la euh, da koo bëgg a jot jotu mënu koo jot wala da koo bëgg kii mënu ko lool mais est-ce que réellement sax loolu mooy problème bi loolu mooy li nga xam ne mooy partie visible de l'iceberg mm-hmm. comprendre Mbaye Ndiaye après ànd naag président Macky kon boog bu ñu ko écarté du loolu. Moussa Cissé la lan moo tax ñu écarté ko. ah mën na nekk yeneen. yoo xamante ne bii moo tax mais en tout cas li am solo mooy il ne faut pas ñu comparer président Macky Sall ak président Diomaye il ne faut pas que ñu comparer leen munuñ war munuñu leen a comparer que bokkuñu. comprendre nga. bokkuñu ci doxalin bokkuñu ci ni nga xamante ni bii bokkuñu. gis-gisu àddina quoi. dafa ñii buñ bokkoon ak président Macky Sall gis-gis wóor na yàlla duñ ñëw di laaj réew mi. mais ñàkk a bokk ak moom gis-gis moo tax ñu laaj réew mi. wallaay c'est parce que xam nañ ñi ñii dañoo war a doxal te doxaluñ. looloo tax. Mm-hmm. kon donc li am solo. mooy euh, nañu jéem a xool fi mu toll nii tey xam nga ban problème lañ waroon a teg débat jamono ji toll nii wala xool jag di jël ay problème waa mbay mi de ki ñu ko jox lii wag lii wag lii mbay mi fan la toll fan la kii beeg yooyu ñi ngi dëgmal nawet et cetera xoola ñi ngi dëgmal nawet ñi ngi dëgmal lii est-ce que fi mu toll nii nguur fi toll nii ki ñu jox assainissement est-ce que warta am jafe-jafe parce que nawet baa ngi ñëw maanaam dugg ci yooyu ndaw ñi nan la ñu kii pré ki ñu fal yenn kii ak yooyu. comprendre maanaam débat yoo xam ni. Mm-hmm. télé yi il faut ñu changer débat. di mm-hmm. def débat yoo xam ne dina amal. njëriñ njariñ réew mi. mais pas kii ak kii léegi ñu xuloo war nañoo xuloo parce que bu lii di anticiper ay xuloo ki dàggasante <laughs> comprendre nga. c'est que réew moo xamante ni bi yow yaa ngi war a développer mais nekk fi naan kii ak kii ah, war nañoo meroo buñ ba buñ meroo yow lan la jariñ réew mi. lan la la jariñ xaw ma ko de man ngay toog di pronostic naan bu kii demee nii kii dina ko bere kii bu ñu ñëwee bu ñu invité kii kii tardé kii dina xam nga. waaw ci jamono jooj yow yaa ngi tardé parce que yaa ngi tardé réew mi yaw yaa ngi war a léegi boobu man dama jàpp ni journaliste yi léegi ndax ay opposition lañ nekk wala lan lañ nekk ñoom tey dañoo waroon a ñëw commencé. focus ci focus ci kii yi. engrais bi yoon nan lañ war a def ndax commencé comprendre invité kii yi ñu xool nan lañ mën a def ba réew mi tegu ci yoon. secteur yi am problème yëpp. ñu commencé di leen invité di waxtaan ci yi nga xam ne mooy problème waaye déedéet <laughs> diw de léegi ma xuloo ak diw. diw de bu defee nii dina xuloo ak diw parce que diw mën naa tardé xam nga Ousmane Sonko ak ni mu te dégg ñoom dañuy natt seen bopp ci Ousmane Sonko naan xam nga Ousmane Sonko ak ni mu. kii xam nga ñu kii ko ak orgue ak ni mu toll. maanaam dañ lay jay sax pour nga jéem xuloo. Mm. fii kenn du fi xuloo. du ñu fi xuloo. ku fi séentu xuloo di nga tardé. Mm-hmm. parce que kenn du fi xuloo. nit ñi ci liggéey lañu woote. Mm-hmm. incha allah na ci sénégalais yëpp jàpp. réew mi dem bu ko defee sunuy doom gundaandaat mm. sunuy sët gundaandaat mu ñu gis ni kat seeni maam toll nañ ba jamono sàngam mm. ca lañ jël réew mi moomal ko seen bopp mm. liggéey ngir seen seen njaboot ba tey njariñ luñ mën a am ñu mën ñoo sant daal ne ah ñu ngi sant sunu maam diw ak sunu maam diw keneen ku ci taxawee beneen taxawaay rek dinañ ne maam diw nag moo doon xajamal mbir mi bu boobaa say sët ëllëg si biir di rus nekk ci gàcc jërëjëf ñëw bàyyi la nga tàggatoo waaw jërëjëf ma jigéen di am mbégte ak kontaante rek macha allah di nuyu sénégalais yëpp waa di ñaan jàmm di mm. ñaanal ñi nga xamante ni bi ñoo ñu jiite sunu borom defal leen jàmm euh, jubale leen dëgëral seen ab ànd mm. ba sénégalais yi jariñu ci li nga xamante ni bi moom lañ ñu dig mm. bépp sénégalais nag jàpp ci ngir yëf yi mën a yemb tegu ci siraatal mustaqiim sunu borom mën na ko yàlla na ko def bu ñu jàpp ni rek ku ñëw dañu war a ñëw daan ne lii ak lii moom moo war a defar réew mi déedéet ñun ñëpp ñoo war a àndandoo defar réew mi kenn ku ci nekk da nga cee am sa donc kenn waru laa gën a bëgg réew mi espoir juddu na ci réew mi yaakaar googu nag nañ fexe lu ko dëgërale mais bu ñu fexe mukk lu jéem a yaakaar googu nga xamante ni moom la sénégalais yi yaakaar ci nit loolu la ñuy wax yàlla bu seytaane xaj fenn te yàlla buñ ko xajalit fenn jëf euh, saa di jaajëfal bu baax a baax kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko euh, ci mbir yi le di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon bàyyi xel jaajëfal nañu tam Modou Diouf du Top ak Abdoulaye jàlloo di leen jox di dajee beneen altine ci l'émission des émissions